والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه mbokk jullit yi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk tënku ci ndigali borom bi wa jal di wattandikuloo suñu bopp di leen wattandikuloo bëtt ay tereem mbokk yi sunu xutba tey ñu ngi jëm ci benn tomb muy weer wi ñu nekk di weeru koor lënkaloo goo xamante ne bi lënkaloo na ko ak alquranul karim di téereb jullit ñépp mbokk yi kon ci weeru koor lañ nekk di weeru alquran woo xam ne dayo bi mu am ba gëne ko yeneen weer yi borom bi def ko muy ab ponk ci ponk lislaam la ko ko mooy mooy alquranul karim borom bi damuy wax chahru ramadan néewul chahru ramadan alladi furida fihi siyam waaye def na chahru ramadan alladi unzila fihi alquran weeru weer la woo xam ne ci la ñu wàcce alquran mu doon ak njub ci nit ñi doon li nga xam ne day taqale dëgg ak fen ginnaaw weeru kon daya boobu mu am alquran moo ko ko jox xeet wi di xeetu alquran jullit bu nekk boo xam ne ngëm yàlla ngay dund sa xol war nga bu weeru koor ñëwee nga yee salaat bu baax a baax wala gën a jàppaat gën a fonkaat alquranul karim ci weer wii la nga ca daan jàng nan nga ko daan settantale lépp nga yokk ko bañ koo jëlal benn bis ndax moom jàng ko alxuraan moo gën ci lañuy ñuy dundale weeru koor li la gën a man a may ab yool fa sa boroom mooy alquranul karim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sama xeet wi li ñuy jaamu yàlla lépp la ca gën mooy jàng alquranul karim képp koo xam ne jàng ko boroom bi tabaraka wa taala dafa lay gàddul ab yool boo xam ne kenn xamul la mu doy koo xam ne yaa ngi koy seetantal sunu boroom dana la def tawfiixal ci say mbir yépp mu doon téere boo xam ne képp koo xam ne ci ngay atte woo say atte day maandu képp koo xam ne yaa ngi koy déglu di ko seetantal fu ñu koy jànge faw sa xol dana nooy sa jikko dana rafet sunu borom dana la ci waar jariñ la ci doon téere boo xam ne boroom bi da cee dëxañ xam-xamu ñu njëkk ñu ak ñu mujj ñi def ko muy ak leer def ko muy ak njub def ko muy saafara képp koo xamante ne bii bëgg nga leer bëgg nga njub bëgg nga saafara di ko sàkku fenn ci fudul fa alquran mooy nga yoon wa képp koo xam ne wan nga ko ginnaaw sunu borom dana la tàbbal sawara wal iyaazu billah koo xam ne yaa ngi koy jàng di ko settantal bokk na ci ay njëriñam dana génne naafiq ci sab xol génne sikk sàkk ci sab xol génne lépp loo xamante ni bi jàngaroo la ci sa aw yaram ndax shifaau la lima sudur njub nekkul fenn fidul ci alquran kon weer wi nga xamante ne bi mooy weeru alquran di weeru koor jullit ñi waxtu wu koor ñëwee war nañoo yee salaat euh, gën a jàppaat alquran gën ko fonk gën ko jox yi ji nga xamante ne bi moom lañ ko joxoon ibnu taymiya dafay wax ne koo xam ne gëm nga ne man ngaa amee ak njub fenn fu dul njub gi alquran indi rëbbum yàlla ak malaaka yi ak nit ñëpp mi ngi ci kawam looloo tax sunu borom di wax ne moo lu tee du leen setantal alquran wala seen xol yi dafa tëju dañ koo xombe lu tax du ngeen waaru ci ay waareem lu tax du ngeen dund ak ay aayaam lu tax du ngeen wuyu ay wooteem euh, tontu la mooy ay xol wala xol yi ci boppam moo xumaag moo tilim ca xol bu xumaagee tilim dara ci leeru yàlla du ci mën a dem moo tax bokkoon na ci li nga xam ne ab jullit doon na ko waajale weeru koor muy tuub waxtu wu nekk borom bi nag du ngeen setantal alquran ndax demam su fekkoon na ba woon a fenn fu dul fa yàlla kon dana am ak wuute lool kenn mus ta dégg téere boo xam ne am na ci kaw suuf lu mat junni at ak lu ca booba ba tey kenn mus cee defar lu tolloog ak virgule waxtu wu nekk jàng ko day gën a saf waxtu wu nekk dégg ko day gën a neex ci xol yi yeneen tey ci ay téere lañuy wuute walla di ca juyoo waaye alquran moom duñ ca juyoo ba mukk لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه tanzilun min hakimin hamid bokk na ci njëriñal ku koy jàng sunu borom day barkeel sa dund sunu borom day barkeel sa njaboot sunu borom day barkeel sa alal waaye koo xam ne wan nga ko ginnaaw sa dund dana ñagas dana xat dana naqari ci bu ëllëgee yoomal xiyaam fa lay gën a naqareet wal iyaasu billah looloo tax njëriñ li nekk ci jàpp alxuraan jàng ko ak di ko setantal di ko jéem a jëfe ak di dégg ay maanim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan woo nit ñëpp ci ñuy jàng alquran di bànneexu ci dégg jàngum alquran di ñu wattandikuloo ñu wan ko ginnaaw di ko tongu wax ne na ngeen di jàng alquran ndax kat moom ko am kóllëre la képp koo xamante ne bii fasante nga ak moom kóllëre fii ci àddina ci anam gu mën di doon booy liggéey yomal xiyaam dana la ramm ci sa kanam su borom اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه day ñëw fa sa kanamu boroom tinu la fa sa boroom lépp loo doon jàq mu dox sa digganteeg loolu ba sa boroom tabal la aljanna loolu rek doy na kon jaam bi am ak moom kóllëre fii jàpp ko bu baax a baax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne su ëllëgee ca bisub taxawaay ba alquran dafay ñëw ak ñi ko jàppoon ci di ko jëfe suratul baqara ak ali imran nekk ca bopp ba di layal mbooleem ñi nga xamante ni bi ñoo jàppoon alquran di ko fonk suratul baqara ak suratu ali imran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ngeen di jàng suratul baqara ndax jàpp ko saar wu am barke la bàyyi ko ak perte laa lay jural jullit bi ëllëg cosaan la boo xamante ne bi képp koo xamante ne bi jàppoo nga ko seytaane yu mag yee mag yi gën a bay mën a gën a bari ay pexe du ñu mën ci yow dara xam ngeen ne suuratul baqara ci la ayatul kursi yu nekk yàlla wàccewul ci alquran aaya bu gën ci eh, ayatul ayatul kursi yi képp koo xamante ne bi yaa ngi koy jàng sunu borom dana la sàmm dana la wat ci mboolem seytaane yi ak mboolem yi nga xamante ne bi day lore rawatina su fekkee ne da nga ko jàng guddi waxtu wooy tëdd képp koo xam ne saa yoo jullee ba noppi jàng ko moom ayatul kursi yu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dara du doxul sa diggante ak tàbbi ajana daree faatu loolu kon benn saar walla benn téere bu amee ne alquran barke amul ci kaw suuf kon ñun yi nga xam ne ñooy xeetu muhammad di xeetu alquran sunu borom terale ñu jox ñu alquran jox ñu weeru koor wàccee ci alquran war na bu koor ñëwee suñu jokkoo ak alquran gën a dëgër suñu jàng ko gën a bari suñu nafar ko gën a euh, setantal ko ak jëfe ko gën a bari ba wataniku bokk ci ñi nga xam ne ëllëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay taxaw fi kanam boroomam di lay ak ñoom ci wan ginnaaw bu ñu waroon wan ginnaaw alquran di wax ne ya rab inna qawmi ittaxadu hada alqurana mahjura ndax alquran ñi dul jullit sax ñi ngi koy jàpp di ko nafar di ci jariñu lu aju ci seen wàllu àddina kon su fekkee ne nag jullit ñoom jàppuñu ko ana moo koy jàpp jullit bi war naa fexe ba mu bañ a bokk ci ñuy tungu alxuraan ci genn wet bañ koo tungu ci jàng ko bañ koo tungu ci setantal ko bañ koo tungu ci jëfe ko mbooleem lu nit di jàng di ci sàkku ab yool alxuraan moo gën ci loolee sëñ Tuba radiallahu anhu ci masaalikul jinaan mi ngi ñu wax ne am na ci suuf yankay ñoo xam ne de ña ngay jël ay werd di jël ay xeeti ñaan di jël ay xeeti xasaayid di ko jàgg sonn te loolu jàpp na moo ëpp ab yool moo ëpp tuyaaba moo gën a mën a laabal seen xol moo gën a mën a yéwéñal seen mbir waaye nee na seen tegtal boobu ay nar la ay fen la iblis rek moo leen war alxuraan mooy matière bépp xam-xam mooy cosaanal lépp njariñ mooy téere bi nga xam ne yi wëng ci mën a am ci boo ko dee jàngal te seetantal mënoo ko am ki leneen ba tax na moom sëñ Tuubaa radiyallahu wird wu nekk wird na ko fu nekk jaar na fa waaye fa mujj rek mooy jàpp ci alquran qiraatul quraani saara wirdi wax ne képp koo xamante ne bi wan na ko ginnaaw setantaloo ko mooy nga sa boroom képp koo xam ne sax nga ci te gisu woo lenn dul moom da nga doon koo xam ne jaam nga bu bu ñuy sant fa sa boroom ku ko doyloo doyloo nga lu doy ku ko doyloo dana la doylu doy walif lépp loo xamante ni bii da ko koo soxla yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne kon waxtu wu nekk dañuy jàng alxuraan dañ koy setantal dañ koy jëfe waaye rawatina ci weer wi nga xam ne dafa jokkoo lool ak alxuraan ba tax sunu boroom di wax chahru ramadan alladi unzila fihi alquran yal na yàlla defal dégg ak topp yàlla def ay jaam yu mu xirtal ci ñu jaamu ko te mu nangu leen seenu jaamu te xaralal aljanna yàlla na yàlla nangu koor yi nangu naafile yi nangu ñaan yëpp dañ ñu fekk ko ay yoon yoon salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu